بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يسرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد عباد الله إخوتي وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله جناو بني سنتيسن بروم سبحانه وتعالى سي أي خيولم نجي دلو لجلس سيد الأنام صلى الله تعالى عليه وسلم جبوتم أي صحابام أي خلفام رضي الله تعالى عنهم أجمعين ونفعنا الله تعالى ببركاتهم في الدين والدنيا والآخرة موكي جلتني موكي إني ماي موكي جنوك نون ñu ngi ne nuyu ku nekk si turam ak santam ku lim juum wala nga fàtte wala nga bàyyi wala doo farmatele man suñu nuyu ak suñu ziyaaraat yépp dañ koy jox imaamu raatib gox bi imaam Muhammad Ndooy mu wesaaral ñu ko si waa gox bi wesaaral ñu ko si waa Yoof wesaaral ñu ko si Sénégal ak àdduna bi yépp wa ala kulli xaal ni ko baaxoo di def muy bés bu jot ci weeru gi ñu nekk ni muy programme yi ima a ima yi ci waxtu wi muy tafsirul quraan buru yàlla su coobareem ak ndogalam dogal na tey nattuñu ñuy ñëw di jéem a fàttalante ki yéen li ñu bokk muy teeru borom bi di rafetlu lool tafsir yi fi jub yëpp ci semaine bi di rafetlu lool tafsir bi mujj démb suñu mbokk mu baax doon ko def al mu al al mufassir al mufti al faqih al ustaaz al xaaj Ibrahima Ndiaye ayyadahu llahu wa nasarahu nasran azizan firi ne leen démb suratu nasri mooy ndimbal yal nañu borom bi dimbali daxal ñu feebar bi di corona ci barke suratu nasri yal na borom bi dimbali ko moom mi ko doon firi nasran azizan duniyan wa oxuran wa barzaxan tey nag ñuy ñëw di firi suratul kaafiruun yal nañu ci borom bu muccal mooy ak kéefër xam ngeen ne àdduna bi ñu nekk nii di ko dund di fi dunde dara nekku fi lu dul ñetti kuréel ëppul ñeent àdduna bi ñu nekk ñetti kuréel rekk ñoo fi ne ñooñu ñooy ñan loolu mooy suñu introduction saar wi kuréel yi nekk ci àdduna ñooy ñan fan leen borom bi tudd nan la leen borom bi melal suñu borom tudde na leen ay saar lu tax mu tudde leen ay saar dinañ ñëw ak yéen wax leen tomb yi nga xamante ne it saaru yi di alkaafiruun moom lay jàngale moom la ëmb danañ leen waxit lii sabab saar yu wàcc muy sababu nuzul bi mooy la cause de révélation wala le contexte de révélation li sababoon li taxoon borom bi wàccee saar wi naka noonu danañ leen wax aslëf ginnaaw bi ñu leen firilee saar wi tajwidan wa tartilan jàng ko daal di ko faram fàcce ba pare dinañ leen wax aslëf li nga xamante ne saar wi ëmb nag si ay ngëneel fi ñuy jeexalee liñ leen di fàttali mooy saar wi lan lañ si mën a jànge muy alkaafiruun xam ngeen ne wax nañ leen ko léegi ne àdduna ñetti kuréel rekk a fi ne ëppul ñeent waa ñooñu ñooy ñan kuréel yooyu ñan lañ ak ñaata lañ ñett la ba way buur yàllay wal buftu bi ñett ñooñu rekk a fii ne mooy ñi nga xamante ne ñoo soobu si yoonu jub wi maanaam yoon wa àgg fa buur yàlla siraatal mustaqim ñi jël yoon woowu yoonu njub mooy yoon wa nga xamante ne jàng ngeen ko ci faatixatul kitaab ña fa jaaroon suñu boroom baaxe na leen defal leen ngëm defal leen lixsaan muy rafetal defal leen lislaam gu mat defal leen ak nangu si ñaan ak nangu si jëf yoon woogu mooy yoon yoonu yonent yi yu nit yàlla yi yoonu nit ñu baax ñi ku ànd ak ñooñu rek yaa tegu ci yoon ñaareel kuréel bi ñooñu nag ñooy ñi gëm ñaareel kuréel bi mooy ñi nga xamante ne almaxdubi alayhim waddaaluun ñi bur yàlla mere sànje leen ak ñi nga xamante ne ñoo sànku réer ñooñu nag ñooy yahood yi ak nasaraan yi ak yéefar yi ñooñu benn kuréel lañ ñoom ñépp ay yéefar lañ alquraanul karim moo ko wax wa qaalat wa qaalat alyahuudu uzayru bnu llah wa qaalat annasara masiixu bnu llah ذلك قولهم بافواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنا يؤفكون بريال نصراني ولا يهودي نين مزير دوم بريال سراني عيسى يالا لا دي اب دي يالا بريال لن مل نموم كن تولو نموم ñoñu nak dañuy ñuro jëf ak wax ñi weddi yàlla muy yéefar yi sa lañ wax noonu te nan lañ mënalee melal borom bi di ko utal moroom naan keneen am na fi leneen am na fi beneen yàlla am na fi bàyyi fi buur yàlla ñooñu yàlla na leen buur yàlla rëbb mooy ñaareelu kuréel bi yéefar yi nasaraan yi dañuy dugg ak yahood yi loolu tax yéefar yi màkk sax ñoo waxoon walad allah buur yàlla jur na buur yàlla am na doom suñu borom tontu leen tontu nasaraani tontu yahud yëpp suuratul ixlaas lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad jurul jureefu ko te amul nawle amul ndende it ñoom it bañ na ittaxada allahu waladan suñu borom dafa tonti ne mattaxada allahu saaxibatan wala walada suñu borom amul soxna bay am doom lu ñuy doyee soxna ak doom wala lan lañuy ñuy doyee doom la ñuy doyee doom yépp suñu borom soxlaw ko nit ñi ni ñu ut doom ngir bu ñu tëlee mu taxaw leen bu ñuy génnee àdduna nekk dañu fi mu donn leen te suñu boroom du tële te waxtu wu nekk mu ngi fi wa ala kulli xaal ñooñu ñaareelu kuréel bi mooy yéefar ñetteelu kuréel bi moy ñi nekk ci diggante bi xamuñu ñoy ñan ñoom xamuñu sax seen bop ñom moy al munafiqun mudabdabina bayna dalika laa ila haulai wala ilaha ula'i ñoy ñi nekk ci diggante bi en intermédiaire entre ñi gëm yàlla ak ñu weddi yàlla ñoy nafexay mono len leen boole ci yéefari ndaxte ñu ngi tudde baati seede yi donte le gëmuñu ko jëfewuñu ko soo leen reyee ñu ne rey nga jullit waaye mënoo leen génn si jullit ñi it soo leen si génne ñu ne génne génn nga julli si mbooloom jullit ñi xoolal loolu rek loolu tax ñoom naafeq yi dañu amee jikku njugub mooy chauve souris arab di ko wax xufaash jikko joogu lañ am mooy jikku naafeq ndax njugub bu naawee jëm kaw picc yi ànd ak picc yi di naaw picc yi dañ la kaan bokkook ñun bokkuñu dara yow si njugub bi nga bokk dellu su njugub bi bu wàccee suuf ànd ak njugub bi di dox ànd ak ñoom njugub bi naka yow bokkoo su ñun bokkook ñun dara yéegal kaw da am laaf di naaw naaw nga ànd ak picc yi loolooy ak naa feq radiyallahu taala anhu sëriñ Babacar Si ne jil khaji malik si waxon saqa sidam muy irgham an fil adi محمد بن الخضر ابن مايابا الجكني البادي وخونا لكو ابن مايابا موغو بوكو نس لي موكو ميلالون خفاش خفاش موي نجوغوب منكو خفاشنا المعروف وخفاشنا المعروف ينقلب الاذى إليه لدى الإخراج في الرغم والهم سنين نجوب مي نافخ دق جيك نجوب لا يور مي ابن ما يابا الجكني اك ني نيوم سو سني نجوب مي نيو خام من نجوب لان لا خام سي موم من نجوب دا ام جيك جوغا خامتاني اي صوبيم مي ген اي نفرم ndox mi مي tour muy sawam bu kay def da kay xëpp si kawam bu delloo su moom ba pare bu xeeñee nag mu ne nit ñi ñoo ko tuur sobe si nit ñi ñoo ko tuur saw mi ba muy xeeñ di ayibal nit ñi di wax si nit ñi loolu mu ne fi raxmi wal hammi du deñ di nekk naafeq ak ku amee jikki njugub si toroxte ak tiis ak njaaxare ñooñu nag ñetti kuréel yi suñu boroom subhaanahu wa taala tudde na leen si alquran introduire leen si suratul baqara melal leen wax leen ku nekk jikko ji mu amee njalbeenu baqara suñu borom ne alif lam mim alif lam mim dhalika alkitaabu la rayba fiih hudan lilmuttaqin alladina yuminuuna bilgaybi wa yuqimuuna alsalata wa mima razaqnahum yunfiquun والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون لول موي كريتير ني گم لول لا انتروديري القران سي سوره البقره گيناو بوم جوغي فاتحه جوليت نون لاي مل كو راغال يالا كو گم يالا دا فاي راغال يالا تا دا فاي سخال جولي دي گيني ازاكا داي باي خيل بور يالا سلو مانتي دون باي خيل بس بو مجيبه گم القران الكريم گم تيري جيكيه du si weddi benn yëpp lay nangu ak yonent yi ginnaaw gi suñu boroom wax na ñaareel kuréel bi mooy yéefari ñi tànn ak kéefër nuur si mooy niyee di diingat di sakk jëf li leen borom bi defal moom la borom bi ne inna alladina kafaru sawaun alayhim a andartahum am lam tundirhum la yuminuun xatama allahu ala qulubihim wa ala samcihim وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم فوف لا يمك نيوم موي ني ويد يالا نور سي كيفر ساخسي دوني نانغو ديغ ديغلوك واو دوني نانغو دارا ньоญي سي لول لا ني ген ادنا كين مانو لين وار نيتيل كوريل بي موي نافقاي ньоญ سين بير يومبل لي ومن الناس لا القران وحق نيوم من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين am na si nit ñi ñu naan gëm nañ bur yàlla gëm nañ bés penc te la ñuy wax gëmuñu ko gëmuñu bés penc gëmuñu bur yàlla gëmuñu sallallahu alayhi wa sallam mooy ñetteeru kuréer bi naafeq xëy ñii ñoo am si kaw suuf suñu borom nag tudde ne leen ay saar si alquranul karim lu tax suñu borom moo leen tudde ay saar tamyizan lahum wa i'laman wa tafdixan bur yàlla leen tudde ay saar si alquran ngir ñu mën a le ñi gëm ak ñu weddi yàlla ak naa fexe yi waaye ngir xamal ñi gëm nan lañ mel wax seeni jikko ñi weddi nan lañ mel mu wax leen ak naa fexe nu mu mel tamit ñu mën ko moytu mu tudde leen ay saar bi si jëkk muy suratul mu'minun suñ borom na qad aflaha al muminuun ñi gëm ñëpp mucc nañ taxe nañ dunyan wa oxran wa barzaxan loolu nag boo ko bëggee xam maa ngi lay yabal nga dem suratul mumin muminuun aay yu jëkk yi nga jàng ak nafar ko loolu moo nekkoon jikku sallallahu alayhi wa sallam ba ñu laajee aïchatu lan mooy jikku yonente bi mu ne alquran rawatina njal benn suratul muminuun ba ulaayka humul waarisuun alladina yadxuluuna aljannata hum fiha xaaliduun loolu tax saar bi ba mu koy jeexal lan la wax wa qul rabbi yaxfir warxam wa anta xayru rahimin yàlla ñu ngi lay ñaan nga jéggal ñi gëm ànd ak yow ànd ak yonent bi yow rekk leen mën a jéggal yaa leen mën a yërëm ñu xam ne it innahu laa yuflihu alkaafiruun ku jaarul si yoon wi ñuy jaar yow mënoo mucc it dunyan wa oxran wa barzaxan doo mucc fenn ginnaaw gi ñëw na suuratul munaafiquun booy xool alquran ni muy ko placé si diggante bi la ko def almuminuun alkaafiruun ñi gëm yàlla xam ne seen mbir mu jiital leen ñi weddi yàlla incha mooy suñu sar wi ñi pri mom la mu jël ñi nga xamul ñoy ñan nek ci digënté bi di jaxassé di féwélé yaquluna bi afwahim ma laysa fi qulubihim ñi wax sen lamagn lu nga xamantene ne sen xol gëmuñu ko moy na fexe ñom la def digënté al mu'minuna wal kaafiruun suñu borom ci sar wogu suratul munafiqin munafiqun mu wax fi melokaanu naafeq di mel xamal ko yonent bi xamal ko njabootam ngir ñu moytu ko bañ ko nekk ngir bañ si tàbbi te ñoom seen jukko bi si gën a garaaw mooy fen ngeen baal ma si kàddu gi noonu lañ ko mën a tudde wala wax lu dul dëgg wala kàcc ñoom alquran nee na ñoom la kaadibuun li ñuy wax dara du si dëgg li ñuy wax gëmuñu ko te suñu borom ñi mu rëbb si alquran mooy ñi dul wax lu dul dëgg ala laanatullahi ala alkaadibin rëbb mbur yàlla mbur yàlla soriyal na yërmandeem ñi wax lu dul dëgg ñii dul jëfe li ñuy wax bi mu mujjee nag mooy alkaafiruun moom lay firi nii tey muy ñetteelu kuréel bi suratul kaafiruun nee nañ saaru màkka la ay aayam juróom benn la bokk ni ci saar yi jëkk wàcc sa màkka mu ngi wàcc نزلت بعد الماعون ginnaaw suratul maawun muy araayta alladi yukadibu biddiin si la wàcc suratul maawun boo koy toftale nag si alquran si téere bi mooy cent neuvième surat mooy suratul kafirun dinañ ko wax suratu tawxid saaru wéetal bur yàlla wal baraati min ashirki dinañ koy suuratul baraa min ashirki saar yu nga xamante ne boo ko gëmee dund dana la dañ dañal fóot la ba nga set wicc bokkaale yàlla ak utal borom bi moroom ak ndende dana la dindi si shirki ak dalal muy cànkute sax ak réer dootoo réer saar wi nag ñëw ne nag di leeral di tefarle di faram fàcce diggante ñaari kuréel yi muy ahlul iman wa abadatul awthan ñi nga xamante ne ñooy ñuñ gëm yàlla mooy ñi gëm yàlla di wéetal borom bi di ko jaamu duñ ko jàmbu benn yoon ak ñi nga xamante ne dañuy jàmbu suñu borom di ko utal moroom di ko utal leneen lu dul moom mu tontu leen rek wax na ñoom la jàpp du dara la nekk du dara doy dal seen xel wàccee leen ne ñom liñu jàpp bi jamono yonent bi dunde du dara ginaaw sallallahu alayhi wa sallam bu fi jógee yit lañu jàpp du dara bi ila yawmi lan mo sabab sar wi wàcce muy sababu nuzul surah neneñ jële nañ ci sahabatul kiram ñu netali ne مكة المكرم دفا أمون فنكل يفر نملني وليد ابن المغيرة أبي جهل عاص العاص ابن الوائل ابن وائل أمية ابن خلف أسود ابن عبد يغوث والخارس ابن قيس أك نملني يوم ñoom dañu fekkoon sallallahu alayhi wa sallam toog sa kaaba ga masjidul haram ñu doon ko indiloon benn proposition si wàllu jaamu yàlla maanaam ñu ànda nekk benn def alternance kii coalition yéefari ak yonent bi bu ñu jaamoo suñu boroom at ñoom yonent bi jaamu seen seen yàlla yi at te yonent bi sax lañ jiital da ngay jaamu suñu yàlla yi laa laata onza at suñ si noppee danañ jaamu sa yàlla ji at ñoom lañ koy defe nag ngir ñu nekk si jàmm gis nañ ne loolooy jàmm ji ni nga nekk mënoo ko bàyyi bon nañ dundee nii ñoom loolu lañu waxoon mais bañ ko waxee sallallahu alayhi wa ne leen loolu mënul ne ñu nekk halumma fa nattabi diinana wa nattabi diinaka ñëwul ñu nga topp suñu diine ñu topp sa diine nga jaamu suñu yàlla at ñu jaamu si yàlla at yonente bi leen maada allah an ushrika billahi gayra maa ngi musul si yàlla di làqu si moom ma koy bokkaale keneen wala leneen loolu la leen tontu loolu neexu leen dëkk ñu dellu mer ñoom Quraysh boo ñëwee si Abdullah ibnu Abbas radiyallahu taala anhu mu ne daat Qurayshun rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam mu ne waa Quraysh mooy waa mag dañu mas a woo sang bi sallallahu alayhi wa sallam naka yow daal seet nañ ba sonn naxante nañ nax nañ mënuñ si dara mënuñu tax nga bàyyi ni nga jàpp lenn lañ bëggoon daal nguur gi ñu yor alal ji ñu yor yëpp ñu jox la ko ñu jox la alal ju bari ñu jox la nguur yi ñu amoon ndombi tànk yi ñu ñàkk ko jox la alal dénk la màkk soxna soo bëgg mën nañ la ko takkal jox la ko ñi mënal la sa lépp yore la sa lépp ci charte nga bàyyi li ngay woote nga bàyyi li ngay woote yow Muhammad te nga bàyyi na suñu yàlla yi moom la Seydil Xaaji Malik wax ne min baadi sabbin wa tadlilin wa tasfihatin axfaw lahu kulla ma axfawhu min idami min baadi sabbi alihatihim gannaaw bi mu ŋàññee seen yàlla yi ñoom yéefar yi sallallahu alayhi wa sallam gannaaw bi mu ŋàññee seen yàlla yi wa tadlili abaihim neenal si li seen wayjur nekkoon seen i maam ne baaxul wa tasfihati aqulihim mu doyadal suufee seen xel nañ gàtt xel li ñu jaamu ay xërëm ku gàtt xel rek a koy def ku ñàkk jom axfaw lahu lañ ko feeñalal كلما أخفوه لب لنك نبون من إضامي سيك نونيل أك مبانيل بينك دفع بروبوزيشن بي مبان وات سيبوري الله أبو طالب جاباسي يوننت بي لانك نك والله يا عمو مانجي وات سيبوري الله وسما باي تخ بوين جلو الجانت بي تك سما لخن دجور جل وير وي تك سما لخو چامن لما يواتيني دوما سباي دارا دوما سوبي دارا نيندك بيواتي كات سيد اسلام نول لنجوار مل بنيو كن غير بنيو كن خب بنيو جل bu ñu kenn xupp ba ñu ragal ndaxte ñii jiite àdduna yi léegi-léegi te yore pouvoir dañ lay xupp di la xëpp li ñuy jëkk sax mooy xëppal bu ñu la xëppee nga bañ dañuy ñëw xuppa la bu ñu la xuppee boo nangoo rek lépp jeex na mais bu ñu si nangu benn yàlla nañu borom bi dooleel te dool dolli ñu waaw yonent bi lànk gànt gàntal ne loolu mënul ne a gënul màgg li ngi may li ngeen may woo jikko ju bolla jikko ju ñaaw la yiwul ma jaamu seen yàlla laata at ah uza ngeen jaamu sama yàlla at may leen ma sama borom dina ma indil tontu lu wér bu ma leen di tontu sallallahu alaihi wasallam dem neenañ ba mu demee bu mu xëyee lay xëyee ak sa màkk sa kamba gi ñu defe ne dañ koy tontu tontu day nangu yonent bi ne loolu nag du mën a ne suñu borom neena manul ne tamit ni ma leen bañuloon démb loolu la borom bi bañ loolu manul nekk si leen jàngal saar wi qul yaa ayyuhal kaafiruun dañu bàyyi si xel buñ koy jàng ñu bañ a yàq benn maas rawatina ñu bañ a dindi négation yi muy naf yi liy dàq boo ko dindee rek maanaa bi day yàqu sina Ali ibn Abi Talib nettali na karama allahu wajahu wa radiya anhu ne abdurahmaan ibnu awf mas nañ ko ganese mu defal leen ñam di leen berndeel defal leen ak naan naan gi nag sàngara la woon keroog mu ne ñu lekk ba pare naan si sàngara si bañ si naaree sàngara si jàppañu jël si ñu xel waxtu julli jot ñu jiital kenn si saxaaba yi mu jiite mii nag keroog sàngara xaraamagul tifaqan ka jiitu woon nag mu jàng qul yaa ayuhal kaafiruun laaya sa nekkee mu dindi ko muy négation yépp mu ne qul yaa qul yaa ayuhal kaafiruun abudu ma taabuduun wa nahnu naabudu ma taabuduun laa yëpp la dindi suñu borom wàccee aaya yaa ayuha alladina amanu laa taqrabu salaata wa antum sukaara hatta taalamu ma taquluun yéen ñi gëm buri yàlla bu ngeen jegeti julli mukk loolu ngeen bàyyi lépp lu jëm si màndite ngeen xam li ngeen di wax ngeen nekk ñu wuri lii nag aaya bi araamal sàngara dindi nag innamal xamru wal maysir moo ko folli saar waa ngoogu incha allah ñu ngi ñëw jàng ko suñ ko jàngee ñu jéem ko firi ñu ngi koy jàng tajwidan wa tartilan muhawalatan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 عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي المصطفى الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين أينما كنا في كل زمان ومكان سأروان نونو بري لنا قل وحل يو صلى الله عليه وسلم وخون لين سنين بيد بويس جرومي سار سي القرآن الكريم يو تنبلي قل قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس قل هو الله أحد قل يا أيها الكافرون قل أحيى إلي أنه استمع نفر من الجن جرومي ساريو ينو تامبلي قل وحنا نجن قالا جو كرل بوكني سي قال جو كري جن مرام بني قل وحل يو صلى الله عليه وسلم بني ينتبه وحل الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد بالأمة fi mu toll borom bi dana yonent bi mu def déclaration bi wax ko mais ñiñ si namm mooy ñun yonent bi du weddi yàlla mënul weddi wa yàlla ñun ñii ñëw si ginnaaw njabootam la bur borom bi dànkaafu ngir ñu bañ a weddi yàlla dara ba ñu ko jaral borom bi ne qul waxal yow sallallahu alayhi wa sallam wala yow mi janox sa téere bi jàngal li ma lay wax neel yaa ayyuhal kaafiruun yéen mbooloom yéefar yi sans exception sans distinction moo xam yahood la moo xam nasaraan la moo xam ani moo xam animiste la moo xam bouddhiste la moo xam moo xam moo xam yaa ayyuhal kaafiruun yéen mbooloom yéefar yi ñu def ne yonent bi dafa ñëw pour nangu yonent bi jàng aay bi ngir weddi ñu def ne yeneen dem naan damay jaamu li ngeen di jaamu pare naa pour nangu yonent bi ne laa abudu ma taabudun laa abudu ma taabudun laa abudu du ma jaamu fu nu toll nii laa abudu te du ma mas a jaamu si lii ñëw si ginnaaw ba ilaa yawmi diin ma taabuduna li ngeen di jaamu te ay xërëm du mas a am bu ngeen ko yaakaar léegi nii fi ma taxaw ak yéen fi l wa fi l istiqbaal dans le présent et dans le futur bu ngeen ko xalaat bu mu rot seen xel sax képp ku ma njaboote it bu ko xalaat bu mu rot sa xel sax bu ko def laa aabudu du ma jaamu yéen yéefar yi yéen ñi sakk jëf alkaafir mooy ki sakk jëf kii niye yàlla weddi teraanga yàlla weddi nekk ak yàlla joxul borom li mu moom laa aabudu du ma fi mu toll nii actuellement fi may wax ak yéen nii maa taabuduuna ngeen di jaamu لا أعبد دوما مسا جامو ب إلى يوم الدين ما تعبدون لي ngén جامو الله أكبر لول لو جليل وروا ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنتم ديت ينيت عابدون ngén جامو ما أعبد لي مي جامو ينت بي نيالا دون واخال كيرو نيامو دون واخال خامنا نيو ني مسا توب du ñu mas a nangul yàlla fi mu toll nii du ngeen jaamu li may jaamu te du ngeen ko mas a jaamu yéen ñii yi may waxal nii ña ko waxoon xalaat boobu loolu tax alquran lu yéeme la yéen ñii di ma proposé ak jaamu dugg seen diine diine ji sax du ngeen di mas a dugg ñooñu ñooy ñan mooy ñi ñu tuddoon sànq ay Walid ibnul Mughirata Abi Jahlin Seydil Xaaji Malik boo demee si siiratul euh, siiraam ba xilaatu dahab fi siirati xayril arab su bunt fukkeel ba sala wax ñooñu ñooy ñan ñi gënoon tar ak nooneel ak weddi yonent bi doon ko jox proposition yi pour mu ñëw seen diine mu ne ashaddu durran min al aada abu lahabin wal aswadani walidun xaarithum bihimi nadrun zuhayrun abu qaysin nubay nubayhu munabbihun wa uqbatun wal aasi abulxakami wa mutcimun وأبي مع ركانة ما لكن أمية أهل البغي والقزم ñooñu la woon te ñii ñëpp kenn mujjëw si tuub ñëpp si lis dañ génne àdduna si kéefër bu ndeg laa abudu ñooñuy ahlul baxi wal qasami ñi beew te alku laa abudu du ma mas du ngeen laa abudu du ma jaamu fi mu toll nii maa taabudu ne li ngeen di jaamu dama koy jàmbu dama koy sori dama koy beddi dama koy moytu wala antum yene du ngeen jaamu fi mu toll nii te du ngeen mas a jaamu maa aabudu li may jaamu nii du mën a wala ana aabidum maa abattum ñu bàyyi sa xel maa abattum taa boogu dafa am shadda daal bi maasuñu ko boo koy jàng doo wax doo abad doo ne maa abad dal bobu dañ koy soppi def ko taa dañ koy idgham dañ koy dugal si taa bi da nga naan maa abad maa abattum doone maa tum ñu bàyyi si xel waaw wal axzu bi tajwidi xatmu laazimu man lam yujawidu alqur'ana aathimu li annahu lilahu bihi anzala wa hakada minhu ilayna qad wasala ne nañ jàng alquranul karim di ko tajwid di ko jàng-jàng mu rafet ne na loolu dafa war a nekk ku nekk si war a dogu xat mun lu ñu war a dogu la waaye laazimun lu war la yit ñu ne ko waxal imamul jaziri moo ko wax mu ne man lam ñu jawidul quraana képp kuy jàng alquran te du def tajwid di rafetal njàng mi aasimu dafay am bàkkaar ñu ne ko waxal mu ne ko noonu la ko buri yàlla wàccee si yonente bi buri yàlla ba mu koy jox jibril daf ko tajwidal jibril jox ko ko jibril tajwidal ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi tajwidal ko saxaaba yi ne leen warattilil quraana tartila na ngeen di jàng alquran jàng mu mucc ayib bu set ànd ak réglin respecté ko di ko embellir mun nag wala ana abidu ma abattum loolu daal du répétition ñaari bokkuñu li ñuy tekki wala ana déet man sallallahu alayhi wa sallam ak ku mel ni man sama njaboot nekk lislaam aabidum muy jaamu aabidun may jaamu maa abattum li ngeen di jaamu maa kuntu aabidan fii ma salaf maa abattum fiihi wala ana aabidum maa abattum masuma jaamu li ngeen di jaamu dans le passé masuma jaamu li ngeen di jaamu dans le présent doon dëgg du ma jaamu li ngeen di jaamu dans le futur it jaamu li ngeen di jaamu mii loolu lay tekki وما ولا انا عابد سي لو باسي ولا انا عابد مسوما جام سي لي وي لي جيتو سما دوند لو جيك بور يالا ديما يوني صاح ما نيك يونت مسوما جام ما عبدتم لي ندي جام سي خرم سي تياخان ني نيك مسوما سي نيك الف تم نسكا والعباده خلوه هكذا نجباء لولو بوسيري واخ يونت بي الف تا مينغو تامغا جامو يالا weddi jaamu yàlla tam nga ko loolu ba nga koy tàmm xale nga ndaw nga te loolu ni yàlla tànn yonente yi ak jaamu yàlla yu baax yi noonu la ñuy def mooy seen yoon moom la Seydi El Hadj Malick wax wa kaana bad an ala xubbil xola ila an jaa fi lxaari ruuxil qudsi lam yanami loolu mooy njàlbeeni mbiram da daan weddi jaamu yàlla nan la daan jaamoo borom bi si millatu Ibrahim حنيفا وما أنا من المشركين سلا نكون سيوني يمشي على إبراهيم عليه السلام سلا دان جاموي برمبي بشري بي نيولكو نباي سخل لول بندق ولا أنا عابد ولا أنا ديت من في متولني عابد مسوما جامو ما أبدتم لنجن دي جامو ممنا سيد الحاج مالك وحسي لامي يامبا توحش قبل الوحي قانة ربه ولم يلهه عن الإله شغول توحش جاي ألنا توحش ويدنا دان ويد جامو يالا سميلة إبراهيم بدي ومك سليني دا سي تاخان نان سانغرا جامو خرم وخ أي تاخان توحش قبل الوحي لجك وحي بينيو القرآن الكريم ñu ne ko waxal mu ne qaanata rabbihi daan na toroxlul boromam di wéetal boromam lu ولم يله عن الإله شغول أمول دار لك دان سخل البدو جام بروما دار داود دخس دي كنتمك بروما مم صلى الله عليه وسلم وندك ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنتم يينت يفري مكي أك نمل نيين ولا أنتم مسلن نك عابدون دان جامو ما أعبد لما دون جامو لجك الإسلام دي نيو من سلمة نكون سنجب mosu leen si nekk mosu leen nekk su njub si ndëng rek ngeen ma si nekk ndëngate wala antum déet yéen ñi may woo ma bokk ak yéen ñu def coalition ñu bokk benn jaamu di awante jaamu yàlla wala antum mosu leen nekk yéen ñi abiduuna di jaamu ma abudu li may jaamu du jëkk mu nekk li wér daal lenn la lakum diinukum waliya diin lakum ñeel na leen diinukum seen ak bokkaale bon nag diinukum fii diine ndaxte yéefar yorul diine diine benn la sa yàlla inna diina inda allahi lislaam benn diine mooy am mooy lislaam même yahud sax lislaam la diine yahud lislaam la diine nasaraan lislaam la ndaxte yahud yi ñoo ko soppi ginnaaw yonent yàlla Muusa tuddi ko yahud taaw yi taaw yaaqub mu yahuda yahuda moobu dañ tudde seen diine ñu ne yahuda moom lañ tuddee diine ji muy taaw yaqub jël fa ñu dëkk muy israël tudde ko yaqub moy israil moom lañ doon wax israil abdullah isra moy abdu il mooy yàlla waaw nasaraan yi seen diine lislaam la woon ñoo ko tud soppi tudde ko nasara nasaran moy dëkk ba Isa ibn Maryam nekkoon nekkoon fa lu bari muy an nasara waaw bondek lakum ñeel na leen noo koy firee diinukum seen ak bokkaale dem leen seen ak bokkaale walla yéen ñeel na ma diini sama wéetal yàlla diini sama wéetal yàlla diini fii wéetal yàlla lay teg kuy wéetal buur yàlla mënoo bokkaale buur yàlla bon ñu bàyyi sa xel lool ndaxte diine bari na lu mu ñëw su alquranul karim baatu diine si boppam te benn bokkul sa moroom lu muy teg diine boo koy xool si luxa ad diinu mooy al aadatu mooy lu ñu baaxoo di def loo tàmm di def loolooy diine aada loo baaxoo di def moo xam lu baax la wala lu bon mais sharia nag bi ñu ko waxee lu baax lay doon moom la Seydi El Hadji Malick boo bëggee xam langue boobu diine yi si ñëw yëpp da ngay dem si xilaaf nuuni ya indi na si yu bari bokk na la mu waxoon si aada ni muy tekkee aada wa diinul ayni aqbaxu kulla diini diine jigéen daal aaday jigéen mooy seen baax jigéen yi baax yi ñu am moo yéesi mbaax baax yi góor ñi leen tane si lépp si wàllu dëj seen aada baaxul si wàllu tudde li ñuy si ngénte li ñuy def baaxul si wàllu mariage dañuy exagéré aaday jigéen daal si wàllu cérémonie li lislaam santaane ñoo yées ngeen baal ma yéen soxna yi diine it dana tekki adduniya wal aadatu wa sira àdduna si boppam dana tekki doxalin diine aduna ak doxalin lolou mu ngi nek suurtu yusuf keroog yusuf ba mu rakam ben Benyamin ba mbokk yi sàkkoo si moom pour ñu bayé ko mu bañ lan la wax lan la lan lañ wax ñu jox la alal nga àtte ko wala mu dem يوسف dafa لانك ne maa kaana li yaxuda axaahu fi diinil malik moom jàpp gi mu jàpp mbokkam di Benyamin téye ko loolu mu ngi ko teg moom Yuusuf fii diinil malik maanaam su doxalinu buur bi buur bi daal nii lay doxalee loolu la loolu la ñuy doxalee noonu lañ ko téye ba duñ ko àtte si àtte seenam réew yéen Kanaan yéen ñi jógee Kanaan muy mbokk Yuusuf dañ koy àtte si constitution réew mi si àtte réew mi dañ koy àtte diine it dana ñëw di tekki alxisaab mooy régler muy calculer suñu borom wax si alquranul karim inna diina inna iddata shuhuri inda allahi ithna ashara shahra fi kitabillah yowma xalaqa allahu alsamawati wal ard minha arbaatun xurum dalika diinu alqayim suñu borom keroog ba mu bindee asamaane juróom-ñaar ak suufi juróom-ñaar daf ko dogal mu nekk fukki weer ak ñaar mu ne inna adda shuhuri wér na ne li mu weer yi fa buur yàlla sa azal fukki weer la ak ñaar loolu moo nekk si kitabullah sa lawxul mahfuz loolu la borom bi dogal te du deñ bi ila yawmi diin bés bi bur yàlla sàkkee asamaan ak suuf la dogal loolu am na si ñeenti weer yi ñu ormaal araamal si xeex mu ne dalika diinul qayim lii nag diinul qayim mooy nattale gu jub yaani xisaabun mustaqim lii mooy nattale gu jub yàlla rek la weeri muy douze mois te du ma sa soppeeku ba ilaa yawmi diin kenn mënul loolu dul moom naka noonu it nee nañ diine dana tekki aljaza mooy payoor récompense برب وحنك سورة النور يوم يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ريالنا ننب يوم القيامة دانا لين متل سين فيجف الحق سماندو يعني الجزاء الأعدل بريالنا يوم القيامة دانا لين متل سين فيجف سماندو سماندو تير ننن دينا دانا تكيد الحكم مي أتي ñëw nay suurtu nuur suñu borom ne azzaaniyatu wazzaani fajlidu kulla waxidin minhuma miata jaldatin jalda jaldatin wala taxudkum bihima rafatun fi diinillah in kuntum tuminuuna billahi wal yawmi alaxir suñu borom ne njaalookat bu jigéen bi ak bu góor bi yépp ni ngeen leen dóor téeméeri yar ndax ndaxte yaruñu dañuy yàq penc bu ngeen am si ñoom benn yërmande bu ngeen di exécuter di doxal àtte borom bi fii diinillaahi fii si aaya bi mooy àtte yàlla yaani fi xukmillah bu fekkente ne gëm ngeen bur yàlla gëm bés penc diine dañu ñëw di tekki al iid muy feet moom la alquran wax ne wa daru alladina attaxadu diinahum laiban wa lahwa suratul an'am juróom-ñaar fukk yow yenente bi neel sa njaboot neel jullit ñi wadaru nañu bàyyi alladina taxadu diinahum ñi nga xamante ne seeni feet nan la ñuy feetoo muy nasaraani ak chrétiens yi ak yéefari nan la ñuy feetoo seeni feet laiba wa lahwa ay fo ak caaxaan jullit ñi bu ñu nuru ñi nga xamante ne seeni feet ay caaxaan lañ koy feete foofu ayduhum lay tekki diinahum yaani ayduhum diine dana tekki assalaatu wa zakat ay ibada muy julli ak azaka wala jaamu yàlla si boppam moom ngay jàng wa ma umiru illa li yabudu llah muxlisina lahu ddin xunafaa wa yuqimu lsolaa wa yutu zaka wa zalik wa dalika diinu lqayima suñu borom ne ña jiitu woon xeet ya jiitu woon min ladun aadam ba yéen ñi xeetu yonante bi ni dale aadama ba yéen mosuñu digal xeet ben xeet lu dul ñu wéetal borom bi jaamu ko moom rek bañ ko utal moroom bañ ko jàmbu sellal jaamu gi muxlisiina lahu diina muxlisiina ñuy sellal ad diina yaani al ibadata lahu yaani lillah ñu sellal jaamu gi di ko dem ngir yàlla xoolal loolu foofu din foofu jaamu yàlla lay tekki leneen it diine dana tekki ba yamul qiyaam bis penc muy bésu àtte bi بس تخواي بين يالنا نار أتم يوم القيامة مملا القرآن وسورة الفاتحة ملك يوم الدين موي بورو بس بيبا موي بورو بس بنت موي بورو بس يوم القيامة موي بس تخواي بوجو فوف يوم الدين يعني يوم القيامة لنس نما دين دنا تكيد الشريعة موي يون لجيسلاسيون بني يالنا ترلل نجار في موي يونا بني مترلل نجتكس نجتانك غير من أعرف مومه moom ne al yawma akmaltu lakum diinakum bés ni tey matal nañ seen sharia sharia bi dootul yokk dootul wàññeeku sharia bi mat na sa xajatul widaa la ko sallallahu alayhi wa sallam waxoon sa gëlëmam nga sa bésu aljuma wa ala kulli xaal bon nag loolu baat bi ëmb na loolu diin dana tekk loolu yépp bon nag loolu tax boo koy firi saar bi da nga naan lëkkum diinukum fii nag shirkukum lay tekki lëkkum ñeel na leen diinukum seen ak bokkaale yéen yéefari jàppaleen seen ak bokkaale wala yee ñun ñeel nañu diini suñu jaamu yàlla diini suñu wéetal yàlla si lañ nekk loolu tax dialogue interreligieux buñ ko doon def du yàgg lool ndaxte suñu boroom àtte nañu ba pare ñun jullit ñi lakum diinukum waliya diin ñu bari nag dañ koy jaxase ngay wax ak nit wuteex moom xalaat wala si lislaam bu mu am fi beneen xalaat jëfi neneen nga wax ko mu ne lakum diinukum din diin tekkuwul loolu fii diine bi bokkaale la ndaxte diine si yàlla benn la loolu nañ si bàyyi xel lool ñu bañ soppi aaye yi si përiñ yi naka noonu ñi ñew wax si ngeneel nga xamantene saar yu am na ko saar yu bari na ngeneel lool mënee su ko lim mënee su ko tak as lepp lañ ci wax bi ci jëkk baraatun min wa ahlihi saar yi ku koy jukkawoo di ko jang di ko comporté mu nek sa comportement sa dundin buri yalla dana la faute ba nga set wit te da nga dañ si bokkaale yàlla ak ñuñ bokkaale yàlla yi duñ la mënal dara saar yi it bokk ni si ngénee li nee nañ mooy taadilu rub al quran dafay tollo kaaru al quranul karim xam ngeen ne lixlaas mooy thulusul quran ñetti lixlaas kaamil la mais kafirun mooy rub al quran mooy ceeru al quran kaaru al quran al quran boo ko xaajoo ñeent kaafiruun mooy benn bi ñu bàyyi si xel isa jaa it noonu la mel suratu nasri moom rubul quran la mooy kaaru alquran naka noonu isa zulzilati am na ñu ne rubul quran la ñu ne nisful quran mooy génn wàllu alquran tamit ay raccourci la saaru it danañ ko jàng inda naw mi bu ñuy nelaw di tëdd guddi ngir kaaraange yàlla musal ñu si shayatinul insi wal jinni te ku koy def yàlla dana sàmmal si ngëm yàlla te booy génn àdduna si lislaam ngay génn àdduna do génn àdduna si yahud ak nasaraan saaru it danañ ko jàng di si mocc di si mocc sallallahu alayhi wa sallam mas na taxaw di julli jiit màtt ko si ba ko jiit màttee dafa musli yàlla rëbb jiit ji ko màtt ni yéen jiiti bàyyiwu leen kenn ba nit buy julli sax da ngeen koy màtt si la jël xorom ndox di jàng kafirun boole ko ak falaq ak naas keroog moom la ko mocc ba mu moom danañ ko mocc di ko luggee ku jaan mag mat wala ku jiit mat wala lu am dangar saar yi it bokk na si ngéneel li muy saar wu bari barke saar yu bari lu ñuy baamu booy xool jullit ñi liñ koy baamu moo fatiha ak lixlaas ak naas ñu ëpp si yeneen saar yi si lam la ak jagleem booy xool saar yu fajar dañ koy jàng julli fajar yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daanaka jàng moox lixlaas si ñaar ràkka yi ñaari ràkki timis yi ngay julli gi booy naafila dañuy recommandé it nga jàng si kaafirun ak lixlaas shafaak witar bëgg nañ nga jàng si it kaafirun ak lixlaas boo demee màkk sa maqaamu ibrahim bëgg nañ nga jàng fa kaafirun ak lixlaas xoolal loolu rek sa aj ak umra mu ne saar wu bari barkeel la naka sar yi neenañ nee ku koy jàng muy lexlaas ak kafirun di ko jàng da ngay nekk ku invisible si seytaane seytaane day invisible si yow du la mën a gis te bu la gisul du la mën a yàqal moom la sëñ Babacar wax ne te xayyara iblisul abalisi xaybatan laqad waqad azzahu lbutlaanu bal huwa haliu mu ne iblisi iblisi gëlëm na te xayyara gëlëm na kan mu ne iblisul abalisi seytaane seytaane muy iblis boppam gëlëm na xaybatan dafa sooy mujj na sooy rëbb sooy jàppul dara ñu ko waxal sëñ Babacar mu ne waqat sa dëgg-dëgg azzahu lott na moom iblis lottal naka lan la lot al butlaanu an ahli hadihi tariqa tijaniya lott na si yàqal ñooñ tariqa tijaniya ak ñu mel ni ñoom di jàngal ixlaas ak di zikar lu bari jullit bu koy def seytaan du la mën a yàqal mu ne maa ngi ko gis haa huwa haali mu ngi nii toog jaaxle si baa jaaxle saar yi it danañ ko jàng moom kaafiruun ne nañ ku jàng kaafiruun suru suratul kaafiruun iza jaa nasrullahi jàngal ixlaas faleex ak naas juróomi saar yooyu ku leen jàng su tukki danañ ko jàng booy tukki buri yàlla dana la may danga dem ci jàmm ñëw ci jàmm rajaa saaliman xaaniman dana dellu sa jàmm te buy dellu sa dana indiwaalem koom koom ngeen baal ma ngeen bàyyi sa xel di ko jàng si tukki kaafiruun lixlaas isa jaa faleex ak naas nee na ku ko jàng si yoonu tukki oto bu doon accident sax doo si dee yàlla dana la épargne di nga dem si jàmm ñëw si jàmm te booy ñëw di nga indiwaale xéewal loolu da yonent bi sallallahu alayhi wa daana wax ne muru sibyaanakum fa yaqra'uha inda almanaami di ngeen digal seeni doom xale yi xale yu ndaw yi yi amul gàllaaj amuñu leeru jaamu yàlla su ñuy tëddati ñuy jàng suuratul kaafiruun su ko defee dara du leen mën a gaar muy seytaane du dara du leen yàqal saar waa ngaawu lan lañ si mën a jànge saar wi lañ si mën a jànge barina na mais dañ koy tënk liñ si mën a jànge mooy bur yàlla ku mu ne yéefar la yéefar la nee na yaa ayyuhal kaafiruun bon de bul rafetal di wax leneen lu dul li yàlla wax ñoom ay yéefar lañ nasaraani ay yéefar lañ laqad kafara alladina qaalu inna allaha huwa almasihu bnu maryam ñii ne insa yàlla la ñooñu weddi nañ yàlla ay yéefar lañ naka noonu it lu'ina alladina kafaru min bani israila ala lisaani daawuda wa isa bnu maryam juif yi it ay yéefar lañ yàllaa leen rëbb si moni daoud ak insaf ni mariam bon li doon rek wax leen ko ñaarel bi liñ ci mëna a jàng ñu ñëw ku gëmul yalla li tax yonent bi doon leen dind si kéfer luñu def du nangu luñu def borom bi ko valide invalide borom bi du nangu dara seen jëf fay neen du leen jariñ yon yom al qiyam mom la alquran naan amilatun nasiba pen perdue la dañuy jëf sonne seen jëf bu al qiyam dañuy son dem safara yalla du leen fay ñu bàyyi sa xel lool moom la alquran wax ne alladina kafaru wasaddu an sabilillahi adalla amalahum ñi nga xamante ne dañu wedd bur yàlla ba pare di gàllankoor nit ñi di leen empêcher di leen ëlbati di tere ñu dugal ci lislaam gi ñooñu lépp lu ñu jëf suñu borom ne neen la dafay nul zéro màbba na amuñu dara bokk na liñ mën a jàng ci saar wi it jullit bu ne warna ci xamane diine deug moy l'islam inna ad diina inda allahi al-islam diine deug moy l'islam ah wa may yabtaghi ghayra al-islam diinan ghayra al-islam diinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin kep ku jàpp benen diine dik diine diinewu te l'islam borom bi lo ci def dula ko nangul te yomal qiyam da nga perte da nga soy da nga ñak buum ñak ceen saaru it li ñu mëna jangalit jàngal it suratul tawxiid mooy saaru tawxiid dëgg wéetal yàlla mooy lixlaas loolu tax ñu koy jàng saa su ne suñu xel du jóge si yàlla suñu xel di dellu si yàlla saa su ne loolu la ñuy jàngal mooy suratu tawxiid laa ilaha illa allah la saaru yi jàngale saaru yi li mu ñuy jàngal day saxal wéetal yàlla suñu xol da koy saxal suñu xel daf ñuy setal si bokkaale ak weddi yàlla bu ñu ko dundee dundal ko ak ñooñ bokkaale yi duñu mën a tarxiisal doo wéet ak nasaraan ba mu naan loola nga naan du la def loo dara si caaxaan li mu ñu mën a jàngal it mooy lan képp ku jaamuwul leneen képp ku jaamu leneen lu dul bur yàlla képp ku topp leneen lu dul yàlla neen la te dañ koy considérer kon kéefër moo xam yoxul moo xam nasaraan la liñ si mën a jàng si jeexit koy jeexal mooy lan al muslimu yaqtadi bin nabi جلد دفا وار روي صلى الله عليه وسلم مو يننت بي سي ليبم رواتينا سي جيفلنت بي مي جيفلنت اك نيمو بوكل لول دينه بوين كا كرومب بوين كا غير بومو باي دينم نا جامو يالله ويتال كو نيكا يننت بي دان دافي توپ يونام باغا گرم لي يفري داف باغا اندك نيوم سي يون سيت سي نيوم جامو ba lolou lañ ci mëna jang jurum juróom-ñaar yoy ci tënk bo ñu teunk saar bi ci firi borom bi ne qul waxal yow sallallahu alayhi wa sallam wala yow jullit bi waxal ya ayyuhal ye feri mbolem ye feri la abudu duma la abudu duma jamu tay ji ma nek ni ak ëlëk ginaaw ëlëk ba yowmal qiyam ma ta'buduna li ngeen di jaamu de wala antum deet yéen it abidu na ngeen jamu, ma abudu li jamu jaamu ni tey de amaa na ngeen tuub mais tey tuubagu leen bu dee wala ana det manit man sallallahu alayhi wa sallam ak julit bu baax abidun may jaamu ma lepp lu nga xamantene abattu mom ngeen doon jaamu demb ni ngeen doon jaamu demb masuma si bok masuma bokale yalla bo ngeen masu woy tay leen wuyu wala antum abiduna ma abud wala antum déet yen, abiduna masu leen jaamu maa aabudu li ma doon jaamu démb démb si kéefar ak weddi yàlla ngeen nekkoon bon nag nekk leen si loolu lakum ñeel ne leen diinukum seen ak bokkaale wala yéen ñeel na ma diini sama wéetal buur yàlla jaalana allahu min alladina yastamicuuna alqawla fa yattabicuuna axsana innahu jawaadun karim wa innahu huwa albaru rahim wassalaamu alaykum wa rahmatullah